président merci dama bëgg presse bi ngeen jël li wax je pèse bien mes mots Mamadou Gueye secrétaire général ONAS Wadi, Wadi, Yalla ji koy fay merci encore une fois l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dama ne tey qui leen gisee pour ñëpp toog fi ku fi ñëw ci Zac Mbao tey di dund xam nga kuy Mamadou Gueye ba démb moo ci mujj damay wax les faits muy def tey jël école primaire Zangbao de faire salle salle informatique Voilà moo def salle informatique Il nous fait un problème de cahier problème de livre problème de problème de nous une valeur de 1,5 million de cent Nous avons dit waaw avons mu jëlati arbre de Noël une valeur de 2 millions de francs au euh, ko ñu ne waaw teg ñu ne ko salle informatique de lañ bëggoon boobu ba léegi ñu ngi koy liggéey mënuñu ko terminer mu jël ko finir ko ba pare équipe ko mu ngi koy waajee a inauguré géey yamul ci loolu mu ngi ci ñu feebar xale yi feebar tey am cancer am problème ñu ñëw waxu ko mu déplacé wu yëkkati ay moyens def ko fa ba pare jël xale bi yóbbu ko Turquie ba pare di ko suivre géey yamul foofu géey tey dugal na ay billet màkk fii ci biir sax mbaaw biee màkk fi ci biir sax mbaw ma xam ci kenn moy suñu imam mo imam jiite tay moko koy maka, màkk amul yamul foofu géy mu ci équipe équipe de football yi nek Zac mbaw yépp ku ci nek subventionné une hauteur de 500 000 francs Zac mbaw nak moy président d'honneur comme mu nekkee président basketteur yi tay basketteur yi tay buñu aggé niveau bi ba président tay jël parole yu mel nii wax ko ci géy géy amuñu fayam géy nak la population ñoo la porté la population ñoo ñoo la la population ñoo lay delloo jukkal di la jërëjëfal parce que lii nga def nii tey man tànk dama dox ma ne non terrain basket ba dañ ko waroon defee mais sa modestie sa sa njàmbaar sa dal sa tey moo tax mu demee nii mouvement yi nag ñu ngi juddu tey teewoon am na mouvement Ziguinchor mu ngi mouvement mu duggee tey ñu ngi waxati waaw a déet mbuur ñu ko fay préparé samedi euh, vendredi mu ngi jëm Kaolack le coordonnateur cordinateur de teewoon mu ngi nii toog donc. li ñuy wax ni bu ñu yeexee ñun waa Zac Mbao ñàkk Mamadou Gueye mii te Mamadou Gueye du ku ñuy ñàkk doxal man nak li leen di dénk assistance bi ak képp ko xam ne da ñuy déglu politigul de moom dañuy dañ ñoon dañuy nekk ne ñu ak mom mais la population a besoin de lui Tay limu tek fi tay euh, ci biir dëkk bi ne képp ko xam ne porteur de projet nga muy jeune pare pour accompagner la financer la former la financièrement euh, encadre la techniquement ma def ci yow dara ba pare akom tas wutuma ci benn intérêt lépp dama la ko bàyyi ngeen def waaye waa ji kenn amul ku mel ni mu ni waay maa ko wax l'homme qu'il faut un homme de confiance plein de valeur l'innovateur il est là l'homme l'homme qu'on cherchait